Sall moo ci toog du ma du mën a wax conc ñu ne ma amoon ah, leen Macky dafa toog suñu dossier yi tant que jógul génn fi ñu ne jël ngeen sonal seen bopp ci avocat wala ñu ne ma amoon ah, leen waaye ndax dossier bu ci Macky Sall toogee ñu ne ma amoon ah, leen ah da ngeen sonal seen bopp rek mais ñun duñu génn xam nga lu ma leen di conseillé ñu ne ma amoon leen daw leen ngeen utali ma sàmbur bu baax parce que maa ngi def ay am ay écho météo ba yàlla dogal vendredi la fa rentré la 4 août sàmbur 14 kenn mosu ko gis bi ma fay dugg ay vingt heures quelque la bi ma ñëwee maa ngi ànd ak ay pas ñoo xam ne dañu lay ramasse tàppe leen trouble à l'ordre public association de malfaiteurs ñoo xam ne dëkkuñu sax Dakar syndicat leen ñëw di jaay dellu ay pire xamuñu luy politique bi ma duggandoo ak ñoom ah yàlla dogal bi ma duggee rek taxaw ma xool saxaar si jol yi nii bii di saxaar ndax daanaka néeg yooyu ñuy tux ñu ëpp ñu tuxul mm-hmm. boo dul tux da ngay am problème man dama ne sax ñun est-ce que duñu ñun suñu baat ni mel nii est-ce boobu la foofu noonu. Mm-hmm. parce que man li may waxee nii sama baat mel doon noonu. Mm-hmm. mais depuis ma génne man nii laay waxee. maa ngi wax suñu waa kër ni lay wax est-ce que du ma dem hôpital ma xoolal moo nekk sama gorsu bi. parce que mm-hmm. pour ma wax léegi normal. day feebul quoi voilà day feebul. man melu ma noonu. tuxum mi day mel ni ngay julli yaa xam looy mën def tuxum mi kenn mënu la ko expliquer. Ah ba fajar sàmm bi ma ñëwee dama fanaan taxaw ba bët set premier jour taxaw ba bët taxaw taxaw. parce que toog bi taxaw ko gën toog bi sa ndigg du ko fekke ngay taxaw moo gën may taxaw deux jours laa ko def dem chef sàmm na ko lii mu mu tëwee mun ma ah ma ne ko ah man correctionnel laa de xam nga kañ laa ñibbi ku xamul kañ ngay ñibbi nag mun naa ma ne ko Sidibé moo fa nekk Sidibé Souleymane Sidibé. chef Sidibé ah, mën na ko nag Souleymane Sidibé mën na ko ku xamul kañ ngay ñibbi mun naa ma a ko mënoo dëkkee taxaw soit damay tëdd ma ne ko soit damay tëdd ah wala ñu fëgg ñu porte fëggal porte mooy su ngeen amee problème ci néeg bi dañuy fëgg porte bi garde ñëw ne lan la laajte mais comme ni ko kii waxee booba bu ñu ma ci dara nga rey ma ci biir wala ma rey laa yemale damay tëdd wala nga fëggal porte moo xam ne kii bañkat la mu ma lay garaawul dama lay pagate ndeke pagate baa gën a bon <laughs> musu ma gis lu mel ci àdduna bi ñoo pagatee bi ma yeewoo damay damaa damm ñu ne ma damm ma leen waaw non dama euh, dama damm ñu ne ma dam ma leen dama dama damm parce que mënutuma dox ñu ne ma ah bon mën leen waaw mun ma dox sama tànk sama loxo dafa déboîté mun ma dox sama tànk damm na gaara bi ne ma non da ngay génn ma ne ma dox ko mënul dox naka lay génne mun te li gën a bon mooy nga rentré vendredi di nga toog samedi dimanche mhm. ba lundi sa benn mbokk du doo ko dégg mhm. moo gën a bon bu yàlla dogoy loolu am ñu ne ma noo demoo xam ne da nga karam man ma dama damm nii bii su ma fi ko nekk moo damay dee ñu ne non loolu kenn ko wax man dama koy wax. Mhm. nit ki li ngay dund da ngay wax sa biir ñu mën cee taxaw. Mhm. parce que boo xasee ba nu sa dugg si biir mënatoo lijjanti sa bopp dara munoo ko ci. te man yaakaaroon naa ne ak li ma yàlla dimbalee ma am connaissance euh, xam ni ñu bari xam ay kilifa yu bari man damaa jàppoon ne kaso boo fa duggee ci yomb yi pour nga génn pour nga génn du da garaaw. Mhm. mais bala ngaa xam ne kaso moo garaaw nga dugg. booy dañuy wax ne papier bu vingt cinq francs moo la Mm-hmm. mais ay centaine de millions génnewu la kaso. Mm-hmm. moo tax misaal kaso dañ bàmmeel la bàmmeel. Mm-hmm. ku dugg si biir mënoo xam lu ci ne. moo tax ñoom dañuy wax ne kaso bàmmeel la. bi ma duggee bi ma bi loolu amee ma woo sama famille ne leen sàmm bi ma ne moo fa génn moom un mois laa may damay dee. ñu ne ma ah ma ne ah dama wax rek man xam ma lii de wutal ma sàmm bu baax ma dugg <laughs> ma jékki-jékki ñu koy yóbbu ma sàmm 48. Sonacos yi fa la wax. c'est bon sample. waaw 48 48 mooy 5 étoiles. moom la wax 5 étoiles appelé ki xam ne mooy. Apala dem ngeen fa bi ñuy defar seen dàmbaloo yi ñëw ngeen fa yaakaar naa ci la xamee bi ñuy defar seen dàmbaloo man ruq bi parce que ñu dañu am ruq boo xam ne moom la ñuy ruq patriote dañu am benn kees boo xam ne lépp fay ne ku ne ci néeg bi yaa xam ngay patriote yaa xam loo mën doon soo amee loo soxla da ñëw ci boobu gars yi demee mën naa ko mujj di doon ko gérer bi ma demee am na ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoo koy yore. Mhm. noonu laa rentré euh, Rebeuss te yàlla xam na ne bi ma ñëwee 48 ba dugg fa dama ne garaawul léegi naa am lal malgré tëdd naa ko ni ma ñibbisi amul lal mais amoon naa fu may tëdd foo xam ne tane na. Mhm. mais problème bi ñu amoon dëgg dëgg dëgg mooy manque ndox. moo tax euh, sama waa kër dama leen la woo ñu ma màggal damaa ne dama parle plus ay parce que man màggal Touba gi ngeen wax nii. ñun bu ñëwee suñu robinet moom la ñu coupé ndax dañu wax nañu am na ay sereau d'eau yoo xam ne dafa nekk côté Wakaam. Mhm. yoo xamante ni que buñ koy nettoyé si mhm. màggal Tuubaa lay tombeel. moo mhm. tax dañuy tëj robinet yi. léegi ñun dañuy toog 4 jours 5 jours ndox keneen te ndox keneen bi ñu jënd noonu boutique bi day mujj yàgg du am ndox. léegi da ngay toog 3 jours doo sangu. yow looy rayante mooy ndox boo xam ne dañ ko mën a raxasoo jàpp moo xuma ko jàpp man sama ma ma man am na yoo xam ne yàlla tegu ko su fekkee ne dana nii am ma ndox noonu laay jullee ñu ne amoon leen waaw. Mhm. am naa si benn waay bu ñu wax maa ngi koy nuyu de passage kii la wax Ahmed si Diouf. Mhm. Euh, daf doon wax ne euh, gis nga gis nga Abdoulahat ma ne mu ne ma euh, gis nga fi ñu nekk nii ma ne ko ah mu ne ma ay ndox ak ay jàppook ay ma man waxuma man julli sax defuma ko ma ne ko waaye déedéet waaye mu ne waaw julleetuma heure bu ma génnee na commencé waa sama julli ndax yàlla tegu ma lenn noonu la ko jàpp ba démb si guddi la génn waa ñu baax moo ñu doon entraîné noonu la ko jàppoo ne julli ma waaw mais après ñu koy wax di waxtaan moom ba mu commencé ba mu commencé di julli xam nga loolu koo xam ne ni mosoo dem police mosoo porte ni plainte ñu xëy xëy dugal ci condition yi mel noonu euh, boo amul mat boo nekkul nit ku mature soo génnee leneen ngay doon ndax ñi ngay jànkoonte ci biir prison bi ndax nit ñi ngay nekk du ay patriote dama fay nekk de ku ne lañ lay booleel am nañ ne dana dana indi ñoo xam ne dañ leen jiiñ ñaari tur yi du ma doo xam ñoom loolu ñoom dañuy indi koo xam ne dañ lay wax ma far kii wala nangam nangam ndax ku fa dugg gaa yi xam sa dossier lépp lu ñu mën a nëbb si biti yow boo duggee si biir kaso bi sa dossier lu mu mën di toll gaa yi dañ ko xam am na ñoo xam ne loolu rek da ngay lijjanti dañ la wax kii lii moo ko fi lii moo ko fi lii moo ko fi. yàlla dogal nag noonu la ñuy def loo boo duggee boo duggee kii ñu xam ko mhm. noo fi duggee ñu xam ko cas bu mën doon cas de lu mën doon mhm. Mhm. ndax mu yàgg ma ne gars yi ma nekkal gis ngeen ñun Macky Sall suñu dossier yii nii nga def crime sax moo ko gën a mu bàyyi ñun nga def crime yaay gën a yomb génn sax que ni ñun ñun ñun ñi nga xam ne ñoo tàppeel manifestation non autorisée gars yi da man la ma leen leer laa ne ndaxte waa ji bu fekkoon liir buy dox mu laaj liir bi yow fan nga bokk mu ne ko Pastef la bokk Ousmane Sonko laay àndal. mu rey rey day yaakaar ne ko Ousmane Sonko la. day jàpp ne i xaar leen na dee ci kaso bi. Mhm. ndax kii Ousmane Ousmane Sonko numéro 2 la. Mhm. foofu lañ euh, nga xamante ni ñoo ñu dugal kaso. d'accord waaye kaso du gàcce waaye demin bi mooy gàcce te ñun dem bi ñu dem kaso bii nii daf ñu yee lu bëri. Mhm. te wallaahi la azim li am ba tax ñu dem kaso bu amaatoo ñu delluwaat fa. te am nañ ndam te incha ndam baa ngi gën a ñëw ci kanam. Mm-hmm. te am nañ ci yaakaar. dina gën a leer dina gën a leer. incha allah dina a leer ndaxte. Mm-hmm. yàlla dogal na département Kër Massar la mel Bilal Diatta fa la dëkk. Bilal Diatta mm-hmm. kañ ko jàppoon. <clears throat> kenn atewu ko ba léegi mi ci kaso bi. Mm. non yooyu libéré. ba léegi génnagul waaw mais génnagul ah, ah mm-hmm. ba léegi génnagul dañ koy wax ne ay rumeur la rek. ba léegi génnagul démb mu génne là-bas jusqu'à deux heures du matin. Mm-hmm. mais kenn génnagul ah, si. ñaar si ñëwoon ak ñeneen ñeneen ñu jàpp Kër Massar. moo tax ma ne gars yi bu ñu jubilé. Mm-hmm. ndax li ñu bàyyi li fa nekk ëpp de. kaso bi. Mm. li ma dégg ñu bàyyi nii. la fa des a ëpp foofu. d'accord la fa des a ëpp foofu. te man dama na wax ne ah xam naa ne sax garde yi boo moytu yàkkamtu ñibbi ñu ne amoon leen ndax ñun li ñuy participer ci économique foofu noonu. ci ay centaine de millions la. wallaahi ci biir kaso bi te ñëppay woote ñun li ñuy dugal ci xaalis. mënu la wax na mu toll. waaw. remise dina jooy. remise dina ah jooy parce que def remise dina jooy. ndax économie. même si ancien ñu fa waaw. Ah. bon ñu génn ndax li tax effectivement li tax ancien détenu yi bëgguñu mooy tey bu fekkee dañoo dugal ci 1000 francs dañ ciy francs yi ma dugal dañ ciy dagg 1000 francs 1000 francs yooyu noonu chef de chambre bi ak ñu yore néew bi ñoom ñoo ko moom imaginel sama néeg chambre de 48 130 mhm. personnes nekk fa léegi ku nekk boo dugal 10 ñu dagg la 1000 francs mhm. ñaata ngay am ñaata ngay am moo tax yàkkamti wuñ ñu génn waaye nag sant yàlla bu baax a baax mi nga xam ne jaar nañ fa ndax ñàkkoon faa jaar wóoru ndax nee naa la Macky Sall mooy taal nit mhm. Macky Sall dañ ko waxoon ne ko Ousmane Sonko sa nit ñi ak ñi nga ànd ñoo taal Ousmane Sonko waaye ñun di ñu naw di ñu fonk. Mhm. naa ñu siggu leen ndax da ngeen xeexal seen réew ba yàlla dogal ngeen dugg kaso ginnaaw yàlla Macky Sall la. d'accord mënuñu jeexal te doo wax ci ki nga xam ne. Mhm. Diop buñ ko doon wax.